because of those public enterprises ñoo nekk di work on losses yow nawet ñaata million la leen la leen nguur gi day jox parce que duñ dee mun a duñ dee mun a dañ dee dem sax ba dañ dee am problème am am si seen yenn funding si they are working on losses foog na secteurs yooyu ñoo nii doon am public private partnership. Namek si doxoon doo leen ameel Senelec 300 millions ngeen naa yokk a ngeen naa yokk a tarif cash power pour mën a fay bor boobu noonu foog naa public private partnership si compagnies yooyu la gën a jàkk Nawek ak Gamtel ak Gamcel they are working on losses they are working on losses ñooñu ngeen waroon a privatise wala ngeen def ko public private partnership ak any other company ñu ñu manage ko ko hence yéen mënu leen koo manage yéen a ngeen loos ñaata ñaata million soo leen ko mun ta fay gambien yi di yokk tarif bi pour mun a mun a fay bor yooyu noonu ñun ñi ñun ñii gën a dee ñun gambien yi sonal nañ yërëm lañ ñu global inflation soo ko seetee is slowing down whilst Gambia's inflation is rising could you imagine at an alarming rate loolu central bank monetary policy committee bi ñoo ko wax soo seetee inflation yu dëkk bi mu ngi 17.4% compared to 13.7% in December. So c'était food commodity inflation mu ngi 22.1%. So Mr. President Adama Barrow state of your the state of the nation address fan nga jëlee sa statistique boobu loolu tam ñu ngi la ko laajte ñun Gambien yi. exorbitant taxes la government bi dey apply on uh, uh, key products like petroleum. kuy lakk mburu da nga soxla essence bagage yi ñoo muuf si marché yi nga soxla essence moto moo ko moo ko moo yóbbu bagage yi kuy tukki essence moo laa yóbbu moo laa indi kii lakk mburu da nga soxla essence. Hmm? courant yi ci kër gi yenn business yi dañoo soxla essence pour mun a opérer tey government Gambia bu nekk mu nge mu ngi put taxes mu nge collect taxes around am 22 dalasis per litre Gambian government bi mu ngi pocket 22 dalasis per both diesel and petrol ba pare soo seetee Gambian government bi 440 US dollar la dee pocket per metric ton on both diesel and petrol lii moo ëpp sax lu Russia ak Angola Nigeria ak Saudi Arabia sax dee profit si seen crude oil yi nga xamante ne nii ñoom seen dëkk dañ am essance seen essence yi ñoo génnee seen dëkk sax ñoom dundee am 440 US dollar a profit per metric ton lii yëpp bokk na si lu tax ECOWAS pare wuñ laa def am chairperson because dem nga sa high power delegate euh, Guinée Guinée Bissau nga foog ne yow lañu ñoo taana campagne nga zéro vote nga am at the lii bokk na si lu gën a tax kay tànnuñ la te you are the seventh most experienced président yi euh, si président yi fa nekk yi nu waroon a taana lan moo tax ñu taana euh, Ahmed Tinubu koo xam ne weer la defagum si toogoom bi. ñu def ñu taana ko ko yow ñu drop la parce que gis nañ ne mënuloo handul dëkk bi doo mën a handul ECOWAS Gambia daf la coog so ECOWAS <laughs> it's a bigger problem for you moo tax zero votes nga am Mr President te dëkk bi comme 2026 billahi comme que sa bakkan nga nekk di toppa te booy continuer di topp sa bakkan Olof Njaay nee na sa bakkan boo ko toppee dina la tabal si jàkka joo bëggutoon a julee te very soon di xam ne ñi la suuraam yëpp la dugal si ba eh, jàkka joo bëggutoon na julee comme 2026 te ruumo bi di ne Lamin Thiam nga a def ministry of local government and lands Lamin Thiam yoo ne nii David Colley sax moo ko gën a dégg angale former a dégg Lamin Lamin Thiam angale yow nga a def ministre non bi am mooy loolu we have all the opportunities pour appoint ñi nga xam ne jàngal nañ mun nañoo handle position si waaye sooy toppa ne diw mooma a mooma dimbale suma campagne bi bàyyi ma bàyyi ma appoint ko diw mooma dimbale suma campagne bi bàyyi ma appoint ko sa government bi du dox ñi laa war a jàppale pour government bi dox loolu du fa du fa du fa du fa mun a nekk Mr President pour gën a gàttal wax bi am man la seen xarit seen doomi ndey am euh, KM Regional Youth President euh, bu UDP Tobaski Sibi maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp am ku si nekk am turam ak santaam di leen wax ne Gambie moo ñu ñor lépp loo xamante ne ni gis nañ ko luy gën a di dëkk bii nii gannaaw ñun di leen make sure am di leen si wax di leen si wax di leen si wax di leen si wax duñ ci tay ba kër gi ñuy dugg suñ biir baameel so ñu ngi leen a sant yéen yëpp di leen gërëm ñu ngi leen a sant yéen yëpp am di leen gërëm ñu ngi leen a sant yéen yëpp di leen gërëm di leen wax ne Gambia benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaw te ñun ñëpp. gis nañ ne njiit boo fi may ñaari taam bu defut na wàcca keneen ñëw te lool la ñoo loolu la ñoo loolu la ñoo campagne foo su neexee yàlla waaw boromos go boromos go wallahi so wala bi jee day kundi ngumen fila jam musina lebembul wal be di wona soto man boto buka lokun hafo fan lokun talante o kente bulu you be le dingu soto so musinani so adiyamo siata adiyamole o fala siyatan bulu bankola koleya fan fo lafaŋo lafita muso fula faŋo bula la wala ita folo wala sayi bon way because kuwol le be o duurum bulu maan billahi kuwol le be o fala saŋaralen bulu billahi lafita muso fulo ñiŋ le faŋo bula la boy wala ye fayi folo baŋ ye a tumbulu fula la yino ye a katan fele faŋ na musu naanta billahi boy ñente jele jele kuuti de <laughs> ndesan etamaɗum ne fan billahi gambi haje ɗe ɓoy gambia be ñanta kamɓena baroye jolon billahi hay mobile ñanta kamɓenna mobe ganda san gambia ya kay gambia ya nde gani hakkilin nin dole beten dole beten faala konkolla e koye ka barole sopote haɗa yiɓe faala dak e koye ka barole sopote karte keso barola binto ala understand baro kay la kuwo kay ate jiyole kanin rek tam saban jam fanti jete bayit right na ba nyama for right now lom han sign sign fo billahi hey aliyati mo bankun kan boy bayo lebe bankun kan fuaro lebe bankun kan miskino lebe bankun kan ibalu nyabe de tereng fon bebe serling mo la bungul be chandi me banno oh no my god ya jele cool bebe ko le yaren cool bebe ko le yaren fon presul baluwokai yankenyado everything abebe sadly boy ah oto boy baro har bibi mun tam sabanjam bibi bi fa na dia na am naji da ta kuyalante nde nde kun don nde men bijan ko sim be balu kanya men alon nin do malon nte ngalon nde nde la balu be dure mbulla ah ninga bi do man kam mi da sinin nela so wala ah, biji so adiamo man sia assalamualeykum warahmatullahi wabarakatu juma mubarak um, albe gambiyankol beɓe dawda mawodimɓe ɓe continue to kendo woni jamu dañi mala uh, nañi message o ɗum ɓe allah dande naɓal tarda alamalayata uh, alɓe kayran kayra konolla ɓe duwal alɓe alamala no juma siya ala kanana na batalke ken senti ala kanañin ken na juma labaŋoti ɓe duwala sima ba jata kendeya alamala kela mbe inchallah mbeɗe ɓe mantoro kolla alamala e bakolla mbeɗa ɓe filo kono ɗa alamalaye ni be bula sila kendo kan alamalaye mbe kanda alamalaye mbe kisi na alfal men ɓe ñaato alamalaye men ndi ñaato sasal be alamalaye saha ke sufolto alamalaye harje firimbade ñaatota ke mbeye mbal be duwala be be momode men audio sotola be duwañin na al be bulla fana ah, be din kanna audio lamoy ɓe duwañin naɓe bulla ɓe duwala be baɗin gambenkol mbiɗum natal dron ka ita dalla ko naka caɓe men kam mbi wala ko eh, mbe gambenko be kumandi la eh, mbe sinna différence ol nge landi kara la a jamfata man jamfa a kana andum 2026 a ñantaka kuma be ñin katte faw ñantaka katte fawlet mi yalon ko gambiyanko be kana dandama ka ganni sod pour que carte o fayi kama sakunda falin bare ganni sod gagama sakunda falin falindiro mi yalon ko aɓe banku ɗon fana nafala andu wo tekkeloola nin manke kilio ti eh, watasimu bi hablillahi jamian wala tafarrahu eh, kila sallallahu alayhi wa sallam ayin yamar wole la andun koleyame yalon kaɓe keren mbi ñin koleyama jibe jumale mo sijumati eh, ifin do um, barola ma sakunda commen alayalo ñamena doron janna ka futa ya kataka ko be banko dingol ta ke faram fanso na faram ay konnante ya dunni molda ma ay mo ñinande politiko la nafa la bara ay mol ñaalo mune kan wala mu siol da ma tema problème oti juma a ñing ko wala adama baroti bara kam mun to wati nka falu na dia mol to kaje ko nin to nyata no e mol kafu min kata faniyati ni mol yam nyo soto ni faniyala karola wallahi eventually to nyabe nalale abenyim abay tan lañ mola ko min yal kafu mo faniyalti an non to nyabe bigolatu nabbi wattammita alka ma kawolmo coccolmoy molu konola min ya lon ko wollel fon e fankumandi siyol la siyol min ya lon ko wollel fon mo la siyo ike nin sidol fayño la siyol to isaji itel la eh, manna jam ka fen fo mi ya lon bari même fo kan ɗon a bemuyne to ko ya lon ko mol meme komin may muna sise daɓoñol men men komin alkali konteñol men men komin fabu saneñol mol men komin dusanoñol ñin mo molit mi yalon ko debbo bay fos ñin mo molit mi yalon man diga dimpiro le mo yilti mari ya muneke 2021 janna kanana ring ya ñilelke moolu ñaato pour kata si fatam fanso naati gambeɗigol teɗa ma ka konnante a naati gambeɗigol da matema so laata na mbeɗaniro kala banque digol beela aligan naw différence ol tukoma katu mbeyajele biriga kate fa ñinlawo miral ñal kan Eh, mum muna fan sifale mum yalon ko bankoɓe man toroɓe ko labbi muna fo mo yalon ko leñanta kanna politiko la karo la bi a tunale ñin sifatam fan si ko kan banko fota wo alhala sifal banko fota wo ñiriwa sifal banko fota wo ñaɗoga eh, sifal ye sobonin ko nandi ada ka sabatu nimol da matema pour tel sifan sun nafa sotono ñamen na bi wala ɓe kerin so wona tana bari na kaca fana kono la ka diŋolu memba sol la bake bake andum mbe moɓe danla nin ko hakkilo wara ka siya mpp la folowasol e fenkol sopotasol ɗe ɓe hakkillema bal ɓe mpp kono lale molɓe yalon ko wolka carte fay ɓe mpp hakkillema bal ba people like dusano ñol ñin molel mi yalon ko kawoye ballem seku mbalo ñol ñin molel mi yalon ko hakkillol ma wara ñin molel mi yalon ko definali doyaro nin si fatam fanso yo damal le protocole la fa busano ñol ni may mona sisa dabo ñol bara ala yamoyle cocabiranata te may damale den dile forcé e malla fim nim mol na mol yalon ko kuma fo kam ka fo mol ko yanyim banko dun man toro ko la 2016 sidi nyanyo le sifalu itel fo yol sementu ya yol bla banko e bi a tuna bi president adam baro abe men ko la bi wolel be a president baro mun daga ka tetendi itel men yalon ko itel le fan ko ko itel president baro tunkan itel ya dada president baro <coughs> ko itel gibe ko daga eh, politiko niŋ a tamandi ali ŋa tamandi niŋ kewuya kono la ali ŋa tamandi niŋ miiralolu niŋ feerolu kono miŋ ye a loŋ ka sibanko sanbaro ñaato si fatam maŋ mu nafa feŋ na so ntelu minnu ye a loŋ ko mbe moo be ŋa mbe kañaŋ ne pipu la uh, udp mimesolu ye a loŋ ko le be patiyo kono la ali ŋa kata baake ŋana na miiralolu ta ŋa faliŋ baake nkana ke komi ñiŋ be ite kiliŋo koto la ali ŋa ñoomuta mo be nin buñanin horomo kan alin kana kataba kentel be kela kume ñin mool sifalu si fatam a bondin na kolkono la hani nga molde me yalon a critisasi ko tele fon be si fatam so tra kamba sabat banko dingo be dan la ñin fasi faram fasi ko ñin alinga bonde na kuma kolkolo la alinga gambin gambian kaya gambia diya gambia la flako gambia national antemo alinga bula ñaato andu woyem be kuma ne ko me ko kilnati be mo kilnati and then pour que kamɓen ka kekilimoti wo damar sin sambano ñaato comme ga eh, hadis o fo ñamina eh, wala watasimu bi hablillah jamian kila sallah sallam a telea fo ako wala tafarraku ako ga juru kilimo muta ifin do mbiyetata miradaya kilila bar koleya min ɓe koɓe ñin koleya pour ga ñin falinno ga pour ñin koleya e bon kam wallahi ke molto me yalon ko ɓe kela kilinti fonsi dare son kilinta dare sono me yalon koloɓe banko nafala andu wo ɓe kela mi jortila dare sonolti so pour ga wo sotono fo ga muñañoyle ga sabari ñoye ga ñomanene ga sunni kol la kol men yalon ko wolel be nyimbango findona be ko la kol men kolla nyimbango be al be demaro la de andu nyinde maro so tona ninte lel mam bulol kafu nyoma so kamala be UDP dingo bana be kuman la be danila be be ya marla fana wolum nyiti ko ali nganna bundal yele nganna bundal yele sabaro ni munyoni kulo kan moolu fana invite moolu fana eh, moolu men ye a lon ko na ñim banko jibe nga ñim banko soma jibe nga banko la alhaalo jibe banko suri sono men ko la bi ñim banko ntele sa findi do antele ndaka banko findin ñim men bebe kiri fende ñi sense no lantel kan namake carte fawlte so carte faw nga ñaati wo fana sike no ñaadi le wala mum fo ngana différence olu to koma le ala le ndada ay in akunyen ko inna khalaqnakum min dhakarin alaya wolmo ala ñasila ñaate bari mune aduna ayen dada ayenke musol nin kewol nin kabilol ti ayenke ayenge siyol titani tani tani wala pour ñoo suute non baro ñoo suute ko la fadam ñoo suute kono la men fi yalon ko fisara ntel yeng ala ya wala mu jumaate wala mu men yalon ko kasilan ala nya so ala banku do ko dum mu fenet mi yalon ko be ala nya sila nya la konto ko ala ko na banko banko da darin kola alin kana fintim banko da um, banko ta lamba tinya la makasar la so ñing korop sono ñi men tilimala me banko banko kambi akamantor ko don ala ala 하나의 면포념대로 아코 Eh, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha alin kana banko ta katinya banko da darin kola wato men nan sene anata tili wonata to nya nata sabat tambe nya to nya ji alin kana son kotake mbe to nya mbe banko man tolgol mbaɗo mbe nyin fokal le ko men kuma kansipal mbo gadal mbo kastere ka nyini fo bar nyin banko bi nga korosiro ke ko man nyato nga ke santo nin duma nga joko karan tam fulo la bi nekkee ak a balaawu